Baasal buddi ko buddi ko dimbalee ngir yàlla nga buddi ko. Babacar Babacar moom ba ma bàyyi na bakkat ko Babacar ko. Babacar magum jëmm nga koy leew. Babacar magum jëmm nga koy leew. magum jëmm nga koy leew. Babacar li nga ma def prélice ba la. kii du Bébé Abdeo Bébé Abdeo loo xam ci ramas bi. toog naa seen kër. ñu toog. seen kër. yow est-ce que toog nga seen kër yow. waaw. waaw noo gisee ramas démb bi. xiir. xiir. xiir. waaw. <laughs> yow Bébé Abdeo yaa ñëwee yàlla yow boo gisee ay xiir eh, yow boo gisee ay xiir. si met bi laa ko gis. kon yow dangay génn guddi yow. waaw. yow ñaar policier nga gis. ñaar. ñaari policier nga gis. waaw. daw nga bi nga leen gisee. asan. cere. ah cere. yow bi yow bi yow daal tey looy wax waa senegal tey ci ci ci couvre-feu bi yow. looy wax waa senegal ci couvre-feu bi. toog nañ seen kër. Ah, toog seen kër. yow it na toog demal rek.

Sampai akhir nu paknoi. Jambaran Jambaran. jambaran terus jambaran. Jambaran. jambaran. yaay jomba ñaay jaruma jaay man gawlo mi namu ma dara salaat yi maa ngi surveiller bu baax ñu ngi buddi di yóbbu rek dinaa ci salaat ndayi nit nag. mais foog ñu da ngeen am pouvoir yàlla di leen woon tëj usines yi tëj bagages yi tëj kër yeeg ñëpp kon lu xum gars yi lam ba am distance deux mètres di wax suba set waaye <laughs> yàlla wax nañ leen nu ne. lu ne nabb nabbal leen ko yónnee nañ leen fi ay yonente ay sëriñ xutbu lu ne yónnee nañ leen ko fi ba tey mënoo leen a gëm corona ni tël rek ngeen ay foo leen daaw jëm xanaa kay ki ngeen yi daw da ngeen koy gis ana corona. xale bi yaayam a ko yar moo tax it dafa réew moo tax Aya corona. Aya corona. Eh, aya mu dem. jugleen dàq eh. sun digee ci yow dinga nga dem. ndax baaxoo ci askan. ba Lat Joor jiitale tubaab ba ñu départ. wuti fi nga xam ne mooy cilmaxa romb cilmaxa cilmaxa mbaaxoñ cilmaxa mbaaxoñ googee uh-huh. tubaab bi ci la ko Lat jiitale jël ay potu sàmbur teg ko ci bopp tubaab bi korog la tubaab bi ba yuuxu na wuyaa yooy wuy sama ndey la korog laa ko njëkk dégg nee la aja sa wane jàmbaar la woon yoro nee na lay nuyu xawaar yu faayil nee la Aya corona, aya corona, aya mu dem, jugleen dàq mu dem, tiktok lakk na dëkk bi yow xanaa neex rang kan kiririn kankan kunkan cincang cungcang yiha huha jungjang mama love you rang ajalan ngeen teel a tëdd Macky Sall la wax na ko ku tëddul ba ineer corona bi dina la dal Alaaji Siise ngeen teel a tëdd yaa ak gaa yu baax yi ngeen ñi yéen daa yi waxal la nan ngeen teel a tëdd Macky Sall la wax na ko ku tëddul ba ineer corona bi dina la dal nan ngeen teel a tëdd waaw mais Babacar yow sa gel bi lu mu la jox ni cadeau laa bëgg a xam. fonde bu toj jotul na yàlla. fonde. fonde. fonde. kii bàyyi naa ndeyam. da naa ko. Oh, du yoon mu lay jox fonde de. man kii yow may ma tuuti rek. repousse dama dama bëgg a def taati man maa def taati te lii dafa xew. man fi ma karo bari na fi agar Rafid yow yow yaa ngi lagi, lengin kau waa man dama bëgg tuur ndox mbokk yi dalee na jàmm xibaar yi kate gën a fës ni faa nga xam ne ni moo di sumbulu a yaayam ñëw vacances seen kër togg fa cëree mbuum far wa ñam ko daal fay jaare takk ka nga xam ne ni moo di xale bu jigéen ba bàyyi sumbulu fi saa di ñu xam ne ñaari paxi bakkani sumbulu yooyu ma ngay nuroog ñaari kanaal yi nga xam ne ni moo di ca tëngeej ku wax tëngeej wax ña nga xam ne ni ñoo di lébu ya lébu ya di xam le nii ginnaaw boo xam ne nii tey jii ab guerre mondial amaatoon na ci dëkk bi ñaari paxe sumul yooyu ca la ni fas yéene daal di làqatu ñëw ci rab bi rab maa leen dàq nday rab ëpp leen flow ñoom ñëpp maa leen jàngal rab xamuñu gat bu ma leen fay fekk luñ doon rab ñaari oto bi jógee càmmoñ bi dojee ne joor ñu mbëkkante ku ci nekk ci ñoom ñu am lu mu yàqule caabi jóge fee di xulle pourquoi dëgg ba amul loi pourquoi noonu la kër gi doon rabee man maa lay indil faaya faaya mooy mëda mëda killa killa lépp della della wax ba yay la ma ne kaaf ba ray la ah loxo yi dañuy xasan fi mu toll te aar bi daa tëj Macky Sall fi mu toll nii géwéli xam nañ ah yaay góoru Mariam kenn du yow nee na huit heures damay tëdd. Eh, huit heures dangay tëdd. Macky huit heures damay tëdd. huit heures dangay tëdd. xoolal bu la vingt heures fekkee fii yaa ko tey yaa ko tey waay ay yettu bopp ak li fi daal buy daal lay sonal Macky Sall lay góoru mareem. mooy góoru mareem. Macky Sall lay góoru mareem. waaw ñëwal dafa xam. ah góor góor ma yëngu. eh eh eh xaaral taxaw bul dem de jàpp ci rek. Buzzfeed, Political,